asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna bi <clears throat> sëriñ Modou Gaynde borom Kéemaan mooy nuyoo di leen nuyoo fii ci studio Kéemaan Vision muy plateforme boobu nga xam ne waa Kéemaan Vision lancé nañ ko gannaaw loolu maa ngi jégalu fépp foo xam ne soppee sëriñ Modou Kéemaan mu ngi fa maa ngi koy jégalu bu baax a baax a baax mm, di wax dama jot ay message yu bare bare bare bare par daal le monde mu mel ni ñi ngi may laaj ci lu jëm ci wàllu match tay bi match bi nga xam ne Sénégal war na ko football tey yaakaar naa actuellement nag il est le la 30 tey la 30 euh, vidéo bi maa ngi koy def midi 8 vidéo baa ngi nii midi 8 lañ koy def tey la 30 le 30 janvier 2022 tey le 30 janvier 2022 midi 8 muy Coupe d'Afrique bi nga xam ne Sénégal ma nga ci Cameroun Gambie football na démb toog Burkina Faso fubal na démb moom moo dem kon yaakaar naa maa ngi gën a leeral ba léegi rek Sénégal moo war a tey am na ñu bari na ñu may envoyé message di ma laaj ci match tey bi match tey bi bu Sénégal gañee alhamdulilahi rabbi loolu la ñuy ñaan waaye du man bu Sénégal gañee du man maa def Sénégal gañee bu Sénégal toogee tamit du sen du man maa def Sénégal toog match tey bi liggéeyuma ci kenn woowu ci téléphone kenn yu ma ci kenn woowu ma ci téléphone kenn joxut ma ci xaalis kenn waxut ma ci dara kon man match tey bi liggéeyu ma ci. donc dafa bëri ñoo xam ne ñu ngi may envoyé message naan ma sëñ bi ñi ngi xaar stat yi sëñ bi ñi ngi xaar lii pour affaire match tey bi résultat yi lan la am na ñu may woo partout dans le monde ma indi benn leeral bu ndaw ne leen match tey bi liggéeyu ma ci man. bu Sénégal gañee liggéeyuma ci du man bu Sénégal toogee liggéeyuma ci du man. loolu maa ngi koy leeral àdduna bi yëpp ko lii laa ne woon naa génn wax ko mu mu mu leer bala béy di wo mbuus wa aqiru dahwaana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu fi amanillah